kër Cheikh Bara Ndiaye waaw otoom lañ taal léegi waaw léegi lañ ko léegi la ko gaay la ko gars yi taal mais nag sant yàlla heureusement que comme c'est du matériel te oto bi moom du fanaan si biir kër gi dëgg yàlla à chaque fois si buntu si biti lañ koy bàyyi waaw parce que moom daa jël léppam teg ko si loxo yàlla saa borom waaw mais nag voilà wax ni ñëpp kër Cheikh Bara Ndiaye waaw otoom lañ taal léegi waaw léegi lañ ko liggéey la ko gars yi la ko gars yi taal mais nag sant yàlla heureusement que comme c'est du matériel oto bi moom du fanaan si biir kër dëgg yàlla à chaque fois si buntu si biti lañ koy bàyyi waaw parce que moom daa jël léppam teg ko si loxo yàlla saa borom waaw mais nag voilà mi ngi noonu kër Cheikh Bara Ndiaye waaw otoom lañ taal léegi lañ ko liggéey léegi la ko gaay la ko gaay taal mais nag sant yàlla heureusement que comme c'est du matériel oto bi moom du fanaan si biir kër gi dëgg yàlla à si buntu si biti lañ koy bàyyi waaw parce que moom daa jël léppam teg ko si loxo yàlla saa borom waaw mais